跳舞 diine ku ko bëgg a gis rek mën nga contacter Aïnou Mady TV Aïnou Mady TV nekk ci Mbour di benn chaîne YouTube buy taxaw ci wàllum diine waaye taxaw ci wàllum lislaam di ko tasaare di am ay émission ci YouTube bi di invité ay boroomi xam-xam ñuy tasaare xam-xam kon képp koo xam ne bëgg nga sa bés. mu daal di taal mun nga jokkoo waa Aïnou Mady TV Aïnou Mady TV nekk ci Mbour ci eh, fi nga xam ne mooy Médine foofu tabarakallahu waa Médine ñuy def liggéey bu am solo jotaay bu ñu mën rek mi ngi ànd ak kon kep ku bëgg tasaare l'islam taru l'islam bëgg lu baax mën nga contacter Aïnou Mane TV ci 77 248 28 67 yalla na yàlla sàmm te defal len ndox mu neex ci aljanna comme ni ngeen tudde Aïnou Mane bi. sa kilifa gu mag gan gu mag a mag a mag yàlla dogal na da xawa tardé touti waye mu ngi tolloog ci côté aéroport bi mu ngi ñew koku moy Cheikh Ousmane kan Mauritanie koku moy sen bakkan. te doomu sénégalais la fii lay juddoo fii la màggee suñu doom la ñun te waa Mauritanie ñoo ñu ko gën a bëgg lépp loo xam ne cérémonie la Mauritanie officiellement moom moo koy ubbi ci alquran waxuma autorité yu ndaw yi waaye président Mauritanie bi sax moom moo la ko gën a xam ngir fonk biñ ko fonk man gim mën alquran jekku bi mu ko jekku waaye tamit nekk koo xamante ne di suñu doom waaye Mauritanie mun nañ ne tey ñu ci ëpp loolu nag yàlla moo ko def ñu ngi koy ñaana yàlla yal na yàlla sàmm ko bëggoon na teel a fekkee jotaay bi waaye comme ni ma ko waxee dëkk bi dafa bari programme xat-xat yi dañoo bëri waaye terewul am na fu mu dem jaar foofu bàyyi ko daw ne balaa lii di jeex dinaa ko fekkee si di wóolare ci Cheikh Omar gis ngeen vidéo yu bëri ba keroog bi ñu demee fasture Touré ñoom ñoo ànd kon kooku bu wàccee ci seen suuf xam ngeen ne tey bésu tey jii ëtti gii recevoir na ku ne jàmbaar bu ne.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 في سر والجهر في الدارين مسترد ملء السماوات والأرضين أجمعيها وملء ما شاء بعد الواحد السمد ثم الصلاة على خير الأنام رسول الله أحمد مع صحب به صعد وآل بيت النبي والأهل قاطبة والتابعين الأولى للدين هم عدد والرسل أجمعهم والتابعين لهم من دون أن يعدلوا عما إليه هدوء أزكى صلاة مع التسليم دائمة ما إن لها أبدا حد ولا أمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنت يلا mi أسبان أكسوف سنت يلا من يمي أي خي may xéewal yooyee ba ca gën a rëy mooy yonent yàlla muhammad ak alquran naam xéewal yàlla yi gën a rëy mooy yonent yàlla muhammad ak alquran yaa ayuha annaasu qad jaakum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuuran mubina Ya ba yàlla di wacce di wacce di mayee ba mu andi yonenti yalla muhammad ak alquran dafa ne gaa yi léegi nag ak lay ci sen kaw ndax mandarga gi gëna a wacc na mu yonent yalla muhammad ak alquran mota bam xasse ba ñew rek kenn amatul dara hada bayaanun linnas mota tax ga deg ndaw yi wax ba pare ñu ne dafa leer ba alquran wacce rek ci la lepp leer هذا بيان للناس بالقران القران القران تلا لبلير وهدى وموعظه للمتقين اكنجب اكواروكاي للمتقين نيل نيرغل يالله إن للمتقين مفازا نيرغل يلا تخيدانو وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا نيرغل يلا تي أدنا بيوم القيامة دانو لندي ومت دوغل الجنة ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض يل يل مي رجل يل موتخ بيل وخيلون تتك ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ولا تهنوا بولن دويد لسان بوب ولا تحزنوا بولن أم جكري وأنتم الأعلون يين يويكري إن كنتم مؤمنين سوفك كين جم يلا لولو ما يشرط لي يلا ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم كنا نسنت يلا تيليغا خامني مومي گم يلا كون دا فا يلا تي جادو تي نون وقت نيك ني سنت يلا تي خيول القران واي ديكو سنت تي خيول يلا صلى الله عليه وسلم دك بي دي دو بور واي اك دك ييكو جيغي ييب يگنا تي گم ني لير جي في جوغي ku ci jot sa wàll nga texe àdduna ak àllaaxira muy leeru alquraanul karim leer bi yal na mate dëkk beeg dëkk yi yal na dugg ci kër yi yal na àgg ci néeg yi yal na dugg ci xol yi yal na àgg ci dënn yi lépp lu jafe woon nit yal na la ko yàlla yombal ci barkeb alquraan gis naa ne Ahmed ci suba ba léegi mu ngi soññ ñëpp pour ñu jox nitu alquraan ñun yàlla dogal na dañ ciy faral di dund ay anecdote yu bare bari ay xissa ay nettali bi ci mujj biig la li nekk ci teral nitu alquran dama toog am benn nitu alquran ku mokkal alquran diis ma soxla yooyu su amee liy njëkk ñëw sama xel mooy nit ku mokkal alquran diis ma soxla su ma ko fajut lu may wax yàlla ma yëkkati wéef bi am lu ma ko yónnee ma ne xaaral ñu bokk li fi desoon ma ciy noppi am beneen nit ku mokkal alquran diisaat ma soxla ma ne xaaral ma yónnee ko li ci des bi may teg téléphone bi la ma nit woo mu ne ma sëñ bi maa ngi lay bindal benn chèque waaye xaaral koo yónni Ahmad Ndaw mii moo ma àndil chèque bi wallaahi alquran bi lay doxe bi may noppi ci kooku la ma kilifa woo Dakar man ma sëñ bi maa ngi lay bindal benn chèque waaye waxi mbàkki mbàkki ma ne ko jërëjëf dinaa woo benn ndaw mu aw fa nga jox

ngëm gi nekk ci dënn bi alquran ji nekk ci dënn bi wax naa leen ko waxati leen ko benn docteur bal sax benn journaliste dama mos a dem ci benn télé toog di waxtaan ak ay kilifa bi ñu paree ñu ne ma sëriñ bi xam ganaar ganaar dama ko bëgg ganaaru ibaad ñu ne ma cheikh bi ah ganaar am na kër ga de ma leen bi may ñëw dama wàccee sama soxna ci hôpital bi muy am doom man maa daw moto bi ñëw Dakar faw ma delluwaat fa xam lu fa am journaliste bi dafa sànni caméra bi mu ne ma nga ne yow li ngay def émission sa soxna mu ci hôpital ma ne ko waaw mu ne man ah dama gis ne yow juumoo benn yoon ba nga fi toogee tànn nga ba mu jeex ñu root ci suñu micro ma ne ko kaay xam-xam fu muy nekk mu ne ma xanaa fii ma ne ko bal wa ayat bal hiya ayatun fi suduri alladina utul ilma wa ma yajhadu biha illa eh al zalimun xam-xam fii lay dee waaye du ñëpp ko mën a accéder fii am na sëriñ soo xam ne fii la nga ko mën a defal waaye du sëriñ sëpp ko mën a kaar la yàgg di ko fii loolu nag moom moo tax dem daara ja ca mag ña am njëriñ kon yàlla nañ fi yàlla saxal alquran ñu ngi ziyaara sunu bàyyi bu baax jëkki ko suma bàyyi Ibrahima Siis mu yóbbaale sumuñu bàyyi fi nekk damay sol lii rek ñi nga xam ne ñoom ñooy ndaw yi taxawal lii ndax kenn laa ci ñoom ci seen tur ñu ngi sant sunu bàyyi bu nekk yi waye ci sen tour ñu ngi sant mbolen sen kilifa yi nga xamne ne ñoom ñoo fi ñew di wax ne yalla suñu borom fay ñu leen ñu ci sen tour ñu ngi sant jigeen ñëpp di sant suñu yaay yëpp jërëjëf jërëjëf waye njëkkee ci sunu ñaari maam yele tok muy suñu maaw ci jeewuli ak ci cejee aawa nga xamne ne daaw même bima toge fi sa yo geso gis leen mu nek image bu rafet yalla nañu yag di ñew di leen fekk fi ñu ngi leen di wax ne ndaw yépp ci seen kàddu laa ko jottalee ñoom ñu ngi leen di sant di leen gërëm ndax soo leen santee gërëm leen sant nga képp kuy jigéen ci kër gi ak li ko wër suñu ayimma aimma ahimma yi nga xam ne ñoo fi teew ma jiital ca sunu baay sunu sëriñ sëriñ Abdourahman Mbeng waaye ak sunu baay sunu sëriñ sëriñ Mbay Siis nekk sunu baay ak mboolem seen imaam yi fi ne بهم نعتز ونفتخر الأرض تحيا إذا ما الغيث إذا الأرض تحيا إذا ما عاش عالمها وإن يمت عالم منها يمت طرف كالأرض تحيا إذا ما الغيث حل بها وإن أبى عاد في أكنافها التلف waaye pare yi nga xam ne ñoom la ñu tuddee bés bii ku nekk ci ñoom imaginel nga dajeek yàlla yowmal qiyaama nga ne yàlla bésu alquran jërëjëf ci mooy suñu maam ci jiya yal na yàlla sàmm ko yàlla guddal fanam yal na yàlla guddal safan ci barkeb alxuraan bég na lool ci yéen ndax ñu juddoo fii ngeen yar ñu wàññeekuwaat fu fekk leen fi daf ñuy neex yal na yàlla sàmm leen jërëjëf jërëjëf yéen a ñu yóbboon daara ja moo amin yaa rabbal alamin amin yaa rabbal alamin macha allah xayaaka rabbi yow ba jërëjëf naa kii mooy sama ñaareel. ndeysaan. kon waxtu wi daf ñoo tënk. mbooloo mi ñu ngi sakk woon ci ñun ñu waxtaane nihaayatu haadihi dunya aduna bii kañ lay jeex aduna kañ lay jeex ak wax jooju suñ ko waxee lan lay tekki mooy bés bi nga xam ne ñéppay deewandoo mooy dee anguro dee anguro ñéppay deewandoo bés boo xamante ne ñu bari ci ñun fàtte nanu ko ñu bari ci ñun bàyyiwuñ ci sax xel kon njaboot gi suñu dajee ne nañu waxtaane àdduna kañ lay tukki ak nan lay demee ñu yëg ne loolee xéewal bu rëy la bés boobee nga yëg ne malaayika yi sax dañ ko ragal ndax bi suñu borom waxee ne kullu nafsin zaiqatul mawt bi yàlla waxee ne bakkan bu ñam dund dina ñam faatu dina dee malaayika yi dañoo ne ñun dee duñu ay bakkan ñun ay ruuxu lasna anfus innama nahnu allah malaayika yi ne ñun dee ay ay ndax mën nga ñoo baal dee googee ñu bañ caa bokk suñu borom daal di cay nga lu mu wax man alayha faan képp kuy dund ci kaw suuf da ngay faatu malaaka ragal bi ñu ragal bés booba ñu ne yàlla ñun dunduñu ci suuf de asamaan la ñuy dund sunu borom ne kullu shay'in halikun illa wajha kullu shay'in halikun illa wajha lahu al wa ilayhi turja'un nee ne loo fi gis dafay faatu ak noo mën a ak foo mën a dëkk ak ku mën a doon sa bàyyi al kullu yamut na ñëpp imaginer bés boo xam ne benn seconde ñëpp daal di ku nekk daal di koy woyofal ci ñun yàlla ne yaa ayyuhan naas يلا نبي بأسفل الأسف ونجاء أيها الناس أي النبني اتقوا ربكم رجل لمس البرم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد منعي من يتقوا ربكم رجل ينسي البرم إن زلزلة الساعة نكبس في خلق لأدنى ينبو سوس ينبو والله شيء عظيم بالممقلة يوم ترونها بس من تكبت تذهل كل مرة lépp lu doon nàmp day fàtte lam doon nàmpal aaya boobu jigéen ñi ñoo la koy gën a dégg jigéen ju nekk ana ñi ñi nàmpal jamono ji xoolal ku nekk ni mu bëggee doomam dañu ne yowmal xiyam su ne tël ñoom dañuy fàtte sax seen doom tadhanu kullu murdiatin amma ardaat wa tadau kullu xam xamlin xamlaha képp ku ëmboon ci saa si da ngay juum da lolu dañ koy gis ci aduna yeen nga ci jigeen ci stressé daal di daal di avorté te loolu stress su yi du dara so comparé ak boobu wa taran naa suba nga gis nit ñi ñu melni ñu mandi wa maa hum bi sukaara fekk ñu mandi wuñu walakin adaballahi shadid day fekk mbugalul yalla rek moom mo tar yawma takunu samaa kal muhl وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما نين بسم كنو أسمان دايما الليويل لين نتكر بتناج بطنج نجس كوكان الليويل نكو يخلي تبونا دفتك نمكت نين يوم تكون السماء كالمهن أسمان دايما الليويل وتكون الجبال كالعهن مونتاني ملني لتين كوتون كوتون ولا يسأل حبيب حليما بني خريج دولاتي مرمى كوجا كون موية تخدم مجو والله كرم كي خمن منو الغرب يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه سنو برم موني الإيماجين البس بدنا نكون نتلي كاتشور بدنا نكون في تيكا وسوف لو يالا تيري غاني كوتشي لاي دوخ بسم كيروك ديغا جيل سا دوم جوخي كو بور مجو di nga joxe sa xarit joxe nga pour mucc nga jël sa jabar ak loo ko nopp nopp nga ne yàqu dugal ci safara pour ma mucc soo ca paree jël sa waa famille yëpp li ma jaaylante ak borom bi mooy ba keroog may faatu suuf su ma wàcc balaa ma fay jóge dinaa geesu ne leen maa ngi leen di dénk yi li may gis ci alquran dafa bari de te xéewal yi ci àdduna du dara du dara soo ko comparé ak li alquran li la alquran di andil ci bànneel bés boobu nag kaay rek dañoo joxe thème xam ne jàngu daara laa te jàngu daara ku xam-xam ne nit daara téere lay mokkal bokkul ak école école université koy defal ñu wax ay docteur ak yi yebal leen ko ci tubaab bi saa yoo toogee kaagu daara yi nga xam ne jàng boobu ndax daara ja suñu bàyyi téere bi lañ lay tëralal mokkal ko téere nag mënoo ko tari ci am yi waaye su ngeen ko gisee waaj leen mandarga yooyu day tekki ne adunaa ngi waaj a tukki ba ci jiitu mooy ba yàlla yónnee yonent bi rek day tekki ne aduna bi tukki na waxoon na ne oolu sittan bayna yaday saa juróom benn ngi bokk na ci liy wane ne ngi waaj tukki ba ma yàlla yónni rek li annahu nabiyyu zaman comme ni ko sama sëriñ waxee al imaamul qurtubi ñaareelu mandarga bi wane ne àdduna ngi waaj tukki ba yonent bi faatoo udu sittan bayna yaday saa minha mawti nee na suma faatoo rek xam leen ne àdduna ngi waaj tukki ñetteel bi ci yi nga xam ne day wane ne àdduna ngi waaj tukki mooy suñu demee ba reyaate bay rey bi newoon na laa taqumu saatu xatta yakfula al harj aduna du tukki mukk lu dul rey bu bari daal di bari maanaam su ngeen demee xam ne saa yoo xëyee dégg ne am na sa bopp nga jaamu yàlla te xam ne aduna li waa tukki dafa am yoo xam ne yéen a koy jugé seen bopp ndax yéen a koy dégg wala ban jour ngay xëy ci réseaux sociaux wala journal yi te déggoo ñu ne la am na ku ñu faat am na ku ñu rey yonent bi nee na saa yu ngeen demee ba saa yu ngeen xëyee dégg am ku ñu faat xam leen ne àdduna ngi waaj a tukki beneen riwaaya ba dafa ne laa taqumu saa xatta laa yadri alqaatilu fi ma qatal wala almaqtuulu fi ma qutil nee ne saa yu ngeen demee ba nit day rey nit soo ko yóbbu ba tribunal juge bi laaj ko lu tax nga rey ko sa moom xamul maanaam nit dina rey nit sax te xamul tax mu rey ko rey soo ko déppiloon taxaw na ko nekk lu tax ñu rey la xam ko nee na su ngeen gisee loolu rek waaj leen nga ne am naa ñu waaj al mawtul fujaar yi ba ca topp mooy al mawtul fujaar yi nee na su ngeen demee ba dee di bette nga toog ak waa biig ci guddi ngeen gonnal xëy ñu ne la dee na nga dégganteeg moom téléphone léegi ay waxtu ñu ne la dee na nga toog ak moom waxtaan léegi ay waxtu ñu ne la faatu na yonent bi nee na su ngeen demee bay gis loolu rek waaj leen takk seen bagage xam ne àdduna tukki na léegi xoolal képp ku faatu da ngay gis nit ñi sax di njëkkante naan moo naa am ni ndox woy na so maanaam démb la mu géew xam na a ce que xam ngeen ne àdduna tukki na gars yi ñoo yëgut maanaam yii may wax moo waroon nekk débat débat yi normal ci suñuy télé ak suñuy rajo waaye malheureusement Sénégal malchance bi ñu am ñi ëpp ci réseau yi xam-xam bi matewu relation moo lay yóbbu ci yu bari mais yii lañ waroon di teg nit ñi di xam kon dee bu bett saa yu ngeen demee ba gis ne dafa bari rek waaj leen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee ne inna bayna yaday saa mawataanun shadid yaaxudu fiikum ka quaasil ghanam neene mu mujjug jamono aduna su waji a tukki suñu borom dina leen natto ay febar yo xamne ci animal yi lañ ko xame won docteur isa mu ngi fi bari na ci ay feebar yi mbass yi fi xewul ci animal yi lañ ko xamoon nee na saa yi ngeen demé febar feebar yu muy dugg ci nit ñi di rey ci ñoom lu bari billahi aduna tukki la xolal yeen ci jamono ba mu ko waxoon donte ci ginaaw ci jamono ba ma demul xataa xata amna lu xefe yoon lu tudd taawun taawun amwaas lu bari ci borom xam-xam yi tekkee ku choléra jamono jooju bi mu ñëwee rey na lu tolloog vingt cinq mille ci saxaaba yi Abu Ubayda amiinu la si gis ci ay feebar yu bari ay ma dëgg lam dëgg xaw ma ci dara nag ak ay yeneen ak yeneen nee su ngeen demee bay gis ay feebar yoo xam ne day rey ay nit bari xam leen ne àdduna tukki na yaakaar naa gis nañ ko ci ay façon bari nee na ci ginnaaw feebar yooyu sanawaatu zalazil ay tremblement de terre saa yu ngeen commencé di dégg ne suuf yëngu na dëkk sàngam yëngu na dëkk sàngam billaahi waaj leen xam ne na tukki dégguñ ko maam lu yàgg dégguñ ko tiit lu yàgg dégg naa ci semaine bi ñu génne Guinée sax waaj leen de te góor gi wàññi leen te déglu xajul ci ñun yonent bi nee saa yi ngeen demee bay gis ne tremblement de terre dafa commencé bari rek dugg leen ci lu ko waajal xam ne adduna ngi waaj a tukki li tax ma leen koy wax naa am balaa demee adduna tukki. Hmm? déedéet <laughs> ne ko booyee de <laughs> dégg ma allah macha allah Cheikh Ousmane ndeysaan mooy dugg si noonu kii bokk na ci ñi dox sama diggante ak yeneen bi xam nga alquran dafa am lu ñu tuddee sanad mooy ijaaza bi ngay jox mooy wane ne alquran bii diw la ko jàngal diw diw ko jàngal diw diw ko jàngal ba mu àgg ci yeneen bi ñun nag fu nekk ñu ngi tane kii bokk na ci ñi nga xam ne ci samay alquran yi may jàngal samay ndonga tari naa ci moom ay kaamil ba maa ngi fii ma am tari ci moom kaamil alquran waaw bokk na ci tey jii mooy jàngkatu alquran ba gën a mat fële ca Mauritanie sama waay la sama wóllare la sama xarit la bi ma ko ne tey jii dëkk bi ma gën a si àdduna laay waxtaanee mu ne ma lu ma jàpp jàpp naa fi agsi xëy na mu wax naa ci Ousmane Kane macha allah marhaban marhaban kon ngeen yéege ko noonu bokk na ci ñi dox sama diggante ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bokk yi bokk na ci màndargay mujjug jamono yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ne su ngeen demee ba fu waay toog di dégg musique laa taquumu saatu xatta yaktura almaazifu walqiinaat nee ne su ngeen demee ba musique daal di tasaaroo musique fu waay toll di dégg musique da ngay tëju sa biir néeg sax dégg musique ku xewle ngénte ne musique ku am céet ne musique su soo soo deelee naka nga door a ne alxuraan soo amee doom ne musique sooy céetal ne musique fu kàndaan alxuraan bul nax sa bopp nit du nax boppam nee na su ngeen demee ba foo toll di dégg musique xam leen ne bés penc ci taxaw na wal xiinaat nag nee na su ngeen demee ba li ëpp ci musiciens yi ay jigéen lañu xool nañ Sénégal lii may wax ay texte la nee soo demee ba gis ne li ëpp ci waykat yi ay jigéen lañu waaj leen xam ne bés penc ci jot na am naa ñu waaj beneen ba mu ne sulfaani min ahli naari lam arahuma ñaare ngi ci waa safara lañ gisaguma leen ñom ci mandargay mujjug jamono lañ bok qawmun maahum siyatun ka aznabil baqar yadribuna biha an-nas ay om de tene yo xamne dañuy yor ay ndel comme ay geenu fas bi ci dóor nit ñi su ngeen ko gisse mu bari rek xam leen ne yowmal qiyam taxaw na yaakaar naa gis nañ ko ci couvre fa lañ ko koy yoy couvre fa wa ay nit ñoo xamne bu tourné ci dóor neena soy gis yooyu rek xam leen ne bés penc la li motax jàng baax li motax di fréquenté borom xam-xam ba lélé yéen da ngeen koy gis jàngat bi ngeen ci am diw dafa soxor waye ñun premier jàngat bi ñu ci am moy alhamdullilah ndax li su am woon dañuy naan yonent bi mu wax du deug manam yu bari fa foofu xaw parce que yonent bi moko waxoon ñaarel bi wa nisaa'un kaasiyaatun aariyaatun mumilaatun maa'ilaatun ru'usuhunna ka asnumatil buxtil maa'ila nee ak jigéen ñoo xam ne dañuy bari lay yére ba pare dañuy rafle maanaam jigéeni tey masalan suñu yaay yi ak suñu maam yi ñoom soo duggaan ci seen néeg yi benn waxande rek lañ daan am ca lañ daan def seeni yére waaye doo ci gis kenn mu génn ci biti sol lu jotul am na ci suñu yaay yi fii ñoo xam ne wér na ma te wóor ne ay jamono amuñu woon lu ëpp ñetti yére wala ñeent waaye doo leen mos a gis mukk ñu sol lu jotul xale yi léegi six battant la ñuy am ku ci génn su soloo cëram yépp a ngi ci biti la mu sol yépp mën nga koo ngëpp nee neen ni sa dañuy solu ba pare aariyaatun daanaka ay yarami neen la ñuy doon da nga gis jigéen ju solu ba pare yaramam cëram yépp nekk ci biti bal sax àgg na ci réseaux sociaux yi lañ koy wane yonent bi nee ne saa yu ngeen ko gisee xam leen ne àdduna tukki na li may wax gis ngeen ko pour ngeen xam ne rek ay mandarga la ñuy wane ne yowmal qiyaam na nee na ñaar ñii ma muy ñooñu di jóore ak jigéen ñii xetu aljanna sax du leen xëye wa inna riixaha la yujadu min masirati kada wa kada te xetu aljanna nee ci distance sàngam ak sàngam soo ko jubee mu xeeñ la moo tax ci beneen hadis nee na ajjana soo doon dox di fa dem soo desee distance boo xam ne soo ko doxee ci juróomi téeméeri at nga àgg xetu aljanna commencé la xeeñ xolal fi da ngay gis nit ku tok di jaay dama bari alal da ngay dugg biir kërëm nga xamni 300 mètres carrés la lañuy tok bu ci wàññi sax dula xéñ aljana soko jubé juroomi téméré at tar xétu xétu ginar yi yey mami yey mami ak man togg meer bobu amna na bu ñu tuddé yey mami ak man togg ndeysan dégg ngeen ci bokk na ci mandarga yi bis penc jot na mu ne saa yu ngeen demee ba toll ci jamono joo xam ne taslimul xaas maanaam nit ku mu xamul du ko nuyu maanaam su fekkee ne nit su la xamee rek la lay nuyu su ngeen demee ba commencé koo gis rek xam leen ne àdduna tukki na bokk na ca ya wa yurfau taarufu bayna naas su ñu demee ba nit ñi xamante ne Dakar da ngay gis nit ñu dëkk ci benn immeuble kenn xamul sa su ngeen demee ba tàmbalee gis loolu nee xam leen ne bés penc taxaw na bés penc su xasee ba taxaw borom bi subhanahu wa taala war a yebal benn malaka ne ko ëffal ma buftu gi malaka boobu mu ngi tudd israfil yonent bi nee ne ba ko yàlla bindee ba léegi buftu gi bañ ko laajee yont bi nee ne dafa mel ni béjjén mooy li saafi di wax wicc wicc benn béjjén béjjén boobu ruuxu jaam yépp ci biir la nee ne ba ko yàlla bindee ba léegi dafa toog daa di téye bi di xaar yàlla jox ko ndigal mu ëf ko moo tax yonent bi bi ko gaay yi ne lu tee nga noos mu ne nan lay noosee te gis naa malaaka bi war a ëf buftu gi moom mu nga toog wàcc ba daa di lem ay yéenam ay rëddi jëwam mel ni kuy xaar pour yàlla jox ko ndigal mu ëf aduna tukki moo tax yonent bi nee na ci xadiisu al imaam al buxaari abi hurayra nee na soo demee asamaan ñaari bëtam mu ngi mel ni ñaari biddéew daf ko xool ca aras ba maanaam ca séesu yàlla di xaar yàlla jox ko ndigal rek mu ëf maanaam ku leen laaj israfil ban mooy malaaka bi nga xam ne du xef xef xef israfil du xef lisaafil yaakaar naa ñëpp lañ ko wax waaw ku jàppale dégguma <laughs> ndax ga sa bopp li tax du xef nee na dafa ragal ne saa yu xefee rek yàlla diggal ko mu daal di ëf buftu gi sunu borom nee ne wa nufixa fi suur ففزع من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله ونفخ في الصور نين نيت دانيو خيي بس بو خامني يونت يا محمد نين غاني نيك تي مارشي دي جاي نينك نيك تي تولي دي ناي ني نيك دي لي نينك نيك تي اتال يي دي ليغي ني تي كير يي نوبلو جيجين ني تي واني وادي توغو dañuy jékki-jékki ñu dékk malaaki bi daal di ëf buftu gi nee na su ko xasee ba ëf fa fazia man fi samawati wa man fi l ard nee na waa asamaan ak waa suuf ñépp ay daal di tiit daal di aj seen loos yi ñépp di xool asamaan kenn ci ñun xamul kañ la waaye li wérte wóor bésu àjjuma lay doon li ma leen mën a wax mooy bés bi àdduna di tukki bésu àjjuma la doon vendredi yi mandarga yi ma doon lim lu mu néew néew gis naa ci lu tolloog 73 yoo xam ne feeñ na ci mandarga yi yonent bi waxoon ragal waxtu bi moo tax ma tënk su ngeen seetloo bésu àjjuma mbaam yi li nuy xëy di yuuxu dafay bari lool ñu bari xam naa daanu ci bàyyi xel daleen ko bàyyi xel ginaar yi ci kër yi dañuy xër di sab lu bari mooy siq yi siik ku ci am ginaar dee ko bàyyee xel da ngay gis ne ajjuma dafay xëy di yuuxu parce que ajjuma gu nekk ñoom jàpp nañ ne tey la àdduna di tukki rabu àll bu nekk ajjuma bu mu xëy rek day jàpp ne tey la àdduna di tukki moo tax saa yu ñu xëyee ñoom dañuy nekk di yuuxu moo tax ajjuma dee leen dem juma xaw ma ndax juma ji mu ngi fees wala déet waaye dee dem juma macha allah jërëjëf jërëjëf Cheikh jërëjëf jërëjëf képp ku nekk ci diggante asamaan ak suuf dafay tiit وكل آتوه داخرين آتوه شعبة Shuba moo ko آتوه Xafsa atawhu la jàng nee ne suñu xasee nga gis ñépp daal di tiit xol asaman mu daal di dellu ca suuratu Zumar daal di koy leerat wa nufikha fi s-suri fa sa'iqa man fi s-samawati wa man fi l-ardi illa man shaa Allah neene mu daal di ëfaat buftu gi képp ku nekkoon diggante asamaan ak suuf ñéppay faatoondoo daf koy njëkk ëf ñépp daal di tiit ba teen xool asamaan mu ëfaat ko ñépp daal di faatoondoo imaginez xool leen silence boobu di am ci kaw suuf dara du yëngu nit ñeeg rabu àll yi fi nekk ak malaaka yeeg ñéppay faatoondoo foofu nag am ñaari masala masala bi ci jiitu mooy ñan ñoo ci dul bokk bunt boobu waxtu wi duñu ko may su ci duggee dafa bari ay débat ñaareelu masala bi mooy ñaata ëf lañuy ñuy ëf buftu gi boroom xam-xam yi dañ cee xaajaloo ci ñaari xaaj xaaj bu njëkk bi dañoo wax ne ñaari yoon lay ëf buftu gi ëf bu njëkk bi mooy ëf bi muy ëf ñëpp faatu ñaareelu ëf bi mooy ëf bi mu koy ëf ñëpp daal di dekki pour yomal qiyaama wax joju nak même sama serigne ci walu tafsir al imam al qurtubi lolé la jàpp waye man damay wuute ak imam al qurtubi damay dem ci ñaari lu équipe ba ku melni ni ibnu taymiya ak ibnu kathir ñom dañu wax ne ñetti yoon la ñuy euf buftu gi imam al qurtubi ak ñimu àndal li tax mu ne ñaar la moy hadithu yonenti bim waxone ma bayna an nafkhatayn nafxatayni arbaun diggante ñaari euf yi 40 mo ci dox yonent bi nag leeralul ndax quarante ans wala 40 mois wala 40 jours wala 40 heures moo tax ñoom nee nañu ñaari ëf moo am ñaareelu équipe bi wax ne ñetti ëf lañu nag ñoom dañ ko delloo ci alquran ndax suñu borom daf ko leeral muy nafxatul faza ak nafxatu saaqa ak nafxatul baax première ëf gi mooy tiital ñëpp ñu téen deuxième ëf gi mooy faat ñëpp troisième ëf gi mooy dekkil gaay yowmal qiyaama yaakaar naa leer na Sénégal fii nag dañoo baaxoo boroom xam-xam su waxee rek par suñu ñu forcé ñëpp ne par force ñëpp ciy tënku ca waxam xam-xam du noonu de Qurtubi mooy sama sëriñ ci alquran képp ku yëngu ci alquran ci réew mi xam nañ ne fi ma teg bi teguma fa ku yàlla bind ci xolumul quran ci wàllu tafsir waaye léeg-léeg saa yu ma gisee lu dalul sama xel damay jadd keroog maa ngi koy junj yi yaakaar naa def naa conférence ci benn dëkk am benn borom xam-xam bu mag ci àdduna bi bind ab téere ma ne dong ngay téere bu baax la waaye masala sàngam daf caa juum muy téere al al al mulaxasul ma wax ko ndax boroom xam-xam yi xam ko Saalih Fawzaan moo ko taalif dama ne leen téere bu baax la waaye fi ma wuuti ak moom mooy soo demee ci baabul kafaa mooy nawle ci wàllum sëy moom nee na ñun maanaam ku dul arab du nawley arab dégg nga racisme boobu parce que naar yi dafa bari ñu gëm racisme wa laysa al ajamiyu ay man laysa bi arabi kuf an lil arabiya loolu la wax nee na ñun soo bëggee takk ab benn naar doo nawle mënoo ko takk ma dénoncé ko ne njuumte la ah, am imam bu ma ci woo xam nga dañ may gis may ree rek te damaa tuuti ma ne ko yu ñàkk fayda yi na mujj tey nga ma ciy woo saa yoo ma woowee na nekk lam xam-xam ne ma Cheikh Omar dama la soxla ci jotaay sàngam wala nañ dem ci télé sàngam ñu wax ci masala bi mais ne lu tax ngay dal borom xam-xam sàngam mooy kan idée yooyu nag faw ñu andi ko ci langi xam-xam ñu bañ di ñu tënk di ñu forcer benn affaire loolu la nag pour nga mën ko faw nga jàng kon ndaw yi nanuy jàng nanu bàyyi raayante bi ñaari saar ñett nga taxaw ne anal qaari fulaan man la ustaas sàngam wala man la imaam sàngam nanuy jàng te bañ a naxante kon ñett yi mooy bunt bi may mujjee tëjee ci wàll googu ma cof ci alquran daal di jox mbooloo mi bés boobee nga xam ne yépp ay dekk tiit wala deewum individuel bi nga xam ne wóorul kenn ci ñun ñii ndax suba di nga yeew wóorul kenn ci ñun te soo xasee ba dugg ci bàmmeel ba ni wallahi di bëgg nekk xaritu alquran mu tëla alquran waxoon naa ko fi daaw ku feragul ijji na fere ijji ku fere ijji nay jàng kuy jàng na lu mokkal ku mokkal la ci sax mokkaloo jëlal sa doom yóbbu ca daara ja góor léeg-léeg nga jël sa téeméer def ko ci góor góorgóorlul nga jël sa xaalis def ko ci jàkk ji nañu fexe jàkk yi ci dëkk bi pare nañu fexe dëkk bii mu am daaray alquran bu mag laa wax te tey jii téeméeri nit fii suñu jaaylante woon ku ci nekk ne balaa waxtu wi déwén dinaa joxe cinquante mille francs daara jooju taxaw ndax su ngeen di sampi jumaa ak i jàkk te amoo leen daara yu baax di ngeen yàgg di jullee ci ginnaaw koo xam ne alxuraanam wérul bari na koy naw ci alxuraan su taxawee fii tari faatiha su ma ko jàppee ba bàyyi ko gadaw faatiha bu ndaw bii fanweeri yàq mën naa ko génne ci kanamam te jombul ñu bari na woon na na maanaam suñuy wax ci alxuraan nag nañu yëg ne ku nekk pour nga yëg yedd nga xam nga mënoon naa fi toog di taamil daara ne Cheikh Omar mi ci télé bi kii dafa dugg si ma ne leen sama sëriñ la ci alquran dafa dox sama diggante ak yonent bi moo tax su ñëwee damay jóg taxaw ndax su ma tàllalee samay biye yowmal qiyaama su ko yàlla di liir daf kiy gisaale turam di lim ba mu àgg ci yonent bi ba mu àgg ci jibril ba mu àgg ci yàlla nii nii wér na ma te wóor ne guddi su may àgg daara ji ak lu ma sonn sonn mu message ma ne ma sëñ bi kaay tamit balaa maa tëdd mu tariloo ma ñetti isib wala ñeent ak lu ma sonn sonn donte da ngay jaaxaan di tari yàq kon alquran jàng ko du wees te alquran wal quranul azim هو كتاب الهداية ولغة القياد وقصة, وقصة الكون الصادقة من بدايته إلى نهايته بل هو تجديد لميلاد الإنسان على اختلاف الحقب وتوالي الأجيال ومرور الدهور والعصور نزل به لمخاطبة النفس البشرية والأخذ بيدها آمرا وناهيا مرشدا وواعدا مبشرا ومنذرا حارسا ومدافعا مصبرا ومسليا معلما وموجها سأميرا وجليسا صديقا وأنيسا فهو الحياة في سموها والسعادة في أوجها والكمال في أسمى معانيه فلقد بلغ الغاية التي لا تدانيها غاية في الرفعة والعلو والخلود والسمو فما أبدع تراكيبه وأروع أساليبه وأسمى معانيه كبير الله أكبر سرين القرآن يلن يلا بولي تنجبوت القرآن ظاهرا وباطنا الجريجف يلن يلا بولي تنجبوت القرآن يلا يلا سخل القرآن تسوني يخل yal na yàlla saxal alquran ci sunuy xel yal na nu yàlla bëggaloo alquran maa ngi dénk suma bopp di leen dénk bëgg alquran maa ngi dénk suma bopp di leen dénk jàpp alquran maa ngi dénk sama bopp di leen dénk fonk alquran di wax ne di wax ne mbooloo mi fi nekk yépp deret moo ñu boole waaye maa ngi jiital sama diggante ak ñoom mbokkook alquran maa ngi ñaan borom bi subhanahu wa taala ku gën a bëgg alquran yal na yàlla gën maa may tawfiq ci sama diggante ak moom ku gën a bëgg alquran yal na nu yàlla boole ci njabootu alquran yowm alqiyaama ku gën a fonk alquran yal na nu yàlla boole ci aljanna ku gën a fonk alquran yàlla na bés bi ñuy jàkkaarloog yàlla yàlla nañ dende kon maa ngi dénk ñépp alquran macha allah jërëjëf jërëjëf tànt bi àggagul fa ñuy duggee ci détail yu bari la may gënal mooy ñu toog di déglu alquran ba mu jeex ñu ñibbi ndax tuyaaba gi ci nekk ndax alquran li muy duggee ci xol yi ndax alquran li muy def ci xel yi ndax alquran li muy def ci nopp yi ndax alquran li muy def ci bopp yi lii rekk lañu fi am ndax dëkk bii suñ ñu yebaloon nañu ñu dem ci leneen suñ ma ne woon demal bëre bi donte xam naa dañ may daan ba keroog may ñibbisi ndax am na wayjur bu mos a ca daara ja mu ne njaboot gi doomam dafa jeex ma ne ko ah mu ne ma ma ne ko na ñëw mu ñëw ba ci man ne sama doom dafa jeex ma ne ko yaa ko def bi romb fi daara bombar bi ànd ko ci man mu tuuti nii kon yalla yalla barkel xamna fofu la nuy dagge kaddu gi di ci jéggalu bu baax ndax jombul am na lu nu miin ci ñun way yalla dafa dogal ñu ñëwé coono lool fan yi yépp tooguñu ñu ngi ci ay jotaay yu bare bare bare réew mi fu nekk ngay dem do xam sax nooy def té lako waral lañuy yobbu rek moy alquran waxna ko gaay yi ci fépp fu ma dem fu dul alquran xamal ne damay dóor rek wala dañ maa forcé gëwuma ci dara maanaam ragal a féete day xañe wërsëg da ngay taxaw publiquement nga ne leen alquran yow laa faral alquran yow laa gëm alquran yow laay déggee mooy tax su la alquran terale rek nga tedd su la terale rek nga tedd lu waay am ci àdduna dañ ko am te yowmal qiyaam kenn du la jiitu yàlla nañu ko yàlla defal insha allahu taala ab donga bu daw mo nekkon don jemantu ma kana min sawabin famin arrahmani wa ma kana min khata'in famin nuqsani صلى الاله على النبي واله ما لبى ملب او تهلل محرم اللهم ارحمنا بالقران arhamna اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم نوّر بالقرآن قلوبنا اللهم نوّر بالقرآن صدورنا اللهم سألناك بالقرآن اللهم توسلنا إليك لأنك الكريم وسألناك لأنك العظيم ورجدنا ورجوناك لأنك رب العزة والجبروت أن تجعلنا من أهل القرآن الكريم في هذه الدنيا اللهم نوّر هذه الأراضي بنور القرآن اللهم نوّر هذه الأراضي بنور القرآن اللهم نور هذه القراري بنورة القرآن اللهم نور هذه القرية بنور القرآن اللهم أدخل نور القرآن في قلوبهم وأدخل نور القرآن في عقولهم وأدخل نور القرآن في بيوتهم وأدخل نور القرآن في أعمالهم اللهم أنزل عليهم وعلينا بركات القرآن اللهم أنزل عليهم وعلينا بركات القرآن ونور القرآن وجاه القرآن سبحانك يا من إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قريبا فأجله وبارك لنا فيه واجعلنا من أهل القرآن الكريم في هذه الدنيا ومن أهل القرآن الكريم في عالم البرزخ ومن أهل القرآن الكريم يوم